waaw ndaje tey bi li ko waral tey dañoo doon uh, dalal ki nga xam moo di coordonnatrice su Promogène di Yaay Fatou Diagne uh, li waral uh, ñëw bi fii mooy dañ doon signé benn convention entre la commune de Pire ak Promogem pour marché yi nga xam ne moom la président bëgg ba marché Sénégal yi xam nga président daw nii nañ ko defaraat marché Sénégal yëpp pour que ñu mu éviter lakk-lakk yi ci am marché yi ni mu tilimee salte gi mu salte ñu koy gis ci Sénégal gi yëpp ci marché yëpp marché Pire ci la bokk ñu ni pourquoi pas du ñu signer benn convention boo xam ne Promogène day boole Pire ci marché yi nga xam ne moom lay moderniser waat defawaat ko ba mu doon marché boo xam ni ñëpp dañuy bëgg a xëy dem dem marché ndaxte Sénégal soo xoolee marché su fa nit ñi di dem su fa yenn soxna yi dem wala góor yi dem dañ koy soofantal luñ sol baax na parce que marché ba. nu nekk la mel léegi nag dañu bëgg defar sunu marché pire bii nga xam ni tey jii kuy jógee sa kër di jëw marché da ngay sanse sol la gën ci say yére ñëw fekk fi ndugg mu gën ci ndugg yi nga ndugg ko mën koo yóbbu sa kër parce que bërëb bi nga xam ne fa la ñuy joxee la nga xam ne moom la ñuy lekk di ko dugal sunu biir yi fa nga koy jëlee dafa doon war a doon fu seel la nga jëlee foofu sel yóbbu ko sa kër togg ko mu togg sel jox ko askan ñu lekk ko ñu nekk sunu marché bii di Pire depuis 1912 ci sama papa yi ñoom wax ay ñoom papa am ndoy ak ñoom seen asan Gueye li ñu wax 1912 la ko fi tubaab bi defoon boobu ba léegi maçon mosu fee dugg bi ma gañee mairie bi nag ci sama ay promesse dafa bokkoon ni man su ma gañee mairie bi li may njëkk a mooy marché bi bi ma toogee euh, gagné maire bi toog ñetti weer ñeenti weer dem naa uti financement ak waa Pendel ba ñu financé ba ko day defar fii nga xam ne foofu la ñu nekk bi ma déggee nag yaay Fatou Diagne jóg ni day ñëw di defar marché yi man kon xaaral ma ñëw seeti ko pour moom it mu gën maa jàppale ci sama marché bi nga xam ne moom nga xam ne su foo làmb day metti marché foo làmb day metti suba gi soo fi xëwoon tey jii ñëw ci di xool maire yi ni ñuy jaaye da leen di yërëm sa yaram day daw waaye tey jii bi yaay Fatou Diagne waxee ñoom boo wax li mu leen nar a defal fii ci dëkk piir bi defe naa ñoom ñëpp seen xol sedd na du ci marché marché centrale Pire rek dinañ ko woon tamit garage ba garage Pire bi soo ko rombee tamit gis nga nit ñi na nañu nan ñu toogee ak euh, dëkkuwaay baag ni ñuy liggéeyee euh, rafetul ci gis-gis xam naa ni ñoom sax ñoom ñoo gën a sonn euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo leen di romb beneen bi soo demee am nañ fi benn daral boo xam ni waa pendal ñoo ñu ko defaloon daral bu mag la bu baax boo xam ni ñi nga xam ne ñooy jaay jur gi dañ fa war a tuxu nag lii wër daral bi dañ bëgg dem def ko ay cantine parce que soo ko ubbee daral bi noonu rek bàyyi ko ni population bi dañuy dem def fa ay mbaar ñaawal ko ba mu ñaaw loolu nag pour pour pour bañ population bi def noonu dañoo bëgg a anticiper ànd ci waa promotion ñu defal ñu ay ay ay yoo xam ni képp koo xam ne bëgg nga place foofu nga dem euh, ligi liggéey ak maire bi ñu jox la place ngay liggéey di di am nooy jëfalante ak maire bi am noonu da ci équipe bi nga xam municipal bi nga xam ne moo fi jógee euh, dafoon daggoon na benn partie boo xam ni dañ fa war a def te dañ fa waroon a def marché fii ci booru booru parcelle ci ginnaaw garage bi noonu foofu tamit dinañ fa dem seeti ko pour que suñu mënee tam am marché bu bees boo xam ne euh, de maanaam waa parcelle ak waa euh, waa foo ña ma wooye waa almadi euh, du duñ jóge ci foofu di ñëw ci marché bi dinañ mën a am foofu am marché boo xam ne foofu la ñuy yem parce que dama bëgg tere ci dëkk bi kenn ku nekk laal sa buntu kër sa table parce que lool maa ngi koy dégg ci dëkk bi et puis maa ngi koy gis kenn ku nekk léegi yaa ngi laal table sa buntu kër di jaay ay jën di jaay ay légumes fekki suñu demee ba liggéey bi avancer ba marché bi commencé ba ñu inauguré ko pare mbir moomu dañ ko fay tere parce que buntu kër du jaayukaay ku bëgg jaay da ngay dem ca marché ba nga jaay loolu dañ leen ko tere nekk bale ñëwleen leen koo tere den naan leen ñëw leen toog fii defoon nañ ko ba mu sell mais daal ñun daal ni Sénégal am amee yaakaar ci Yaay Fatou Diagne ak ñi mu àndal ak équipe bam ak Promogène ñun waa Pire suñu yaakaar moo gën a seenu yaakaar parce que ñun vraiment euh, Pire dama koy faral di wax amul dara lu rafet loo xam ne maire bee ko moom loo fi gis lu rafet rek nite ko moom te loolu dafa war a jógee bien bien dañu war am ay bien ay marché ay ay centre culturel ay ay ay ay ay ay bërëb yoo xam ne commune bi moo ko moom te mën nañ lii ñuy defar su paree ak li yaa Fatou Diagne di defar su paree mu doon ay bara bërëb yu rafet yoo xam ni Pire ñoo ko moom ba pare waa Pire ñëw sàmmal ko seen bopp surtout soo xoolee ci li naan promogène am na partie bu naan gestion suñ ko defaree ba pare te amul gestion bu normal bu baax day day yàquwaat donc il faut ñu defar ko defi benn bureau boo xam ni eh, ñii ñooy xëy di ko garde marché bi di tëj heure wax na ko di ubbi heure wàcc heure ñu teg lépp dans les règles de l'art su ko defee Pire jëm kanam actuellement nii yaay Fatou maa ngi lay ko wax piir li naan pire bouge depuis quelques mois yéen journalistes yi yéen a ma gën a xamal ni piir bouge yaay Fatou Diagne mii dafa ñëw pour jàpp ci loolu di bougeel pire di yëngal pire dëkk bi ñëpp xam nañ ni dëkk bi yëngu na. dëkk bi yëngu na ci liggéey ci développement ci loolu lépp su amee d'accord maire bi ñu ngi ciy def wàllam mais c'est grâce. ah que le président Macky Sall mooy moo moo moo moo ñuy jàppale ci lii nga xam ne moom la ñuy def ci dëkk bi moo nekk sama ginnaaw nekk ci ginnaaw yaa Fatou Diagne nekk ci ginnaaw bépp maire boo xam ne yaa ngi liggéey sa gox ñu nag waa Pire ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm parce que wax dëgg yàlla fépp fu ñu fëgg rek président Macky Sall ñu koy ubbil pour ñuy defal dëkk bi lii nga xam ne moo baax ci dëkk bi ba ñëpp naan ndoy baan mi ngi liggéey nañ xam ne nag su xamalan leen naan yaay jaa jàpp ca mbagg ya naan doxabul xale su neexee yaay jaa jàpp ca mbagg ya état Sénégal moo jàpp saa mbagg di ma jàppale pour may defar pire loolu nag wax population bi xam bu baax a baax kii Macky Sall ko fi yabal mu su su neexuloon Macky Sall du fi ñëw marché bu rafet bi mu ñu naar a defaral Macky Sall la ko may doole jox ko alal ji pour mu defar marché yi nekk ci Sénégal yëpp waaye nag dañ bëgg séddale ca kuddu yu njëkk ya nag ñu njëkk a defaral loolu daal laa awal lu may wax ñu ngi leen sant di leen. madame Yaye Fatou Diagne coordonnateur national du programme de modernisation et de gestion des marchés le Promogem. voilà revenez un peu sur la mission du Promogem. alors euh, est de mettre en œuvre la politique gouvernementale instituée par son excellence le président Macky Sall en termes de modernisation et de gestion des marchés sur l'étendue du territoire national. Qui dit marché, nous disons établissement marchand. Cela ne se limite pas tout simplement au marché classique. Nous avons des marchés hebdomadaires, nous avons des établissements de distribution dans les coins et recoins de chaque collectivité. Donc la mission du Promogem consiste en la modernisation euh, de l'ensemble de ces infrastructures. Euh, cela en accord avec la vision de son Excellence, par rapport au plan Sénégal émergent pour mener notre pays à l'émergence, en comme un pays développé. Et comme on dit, euh, la modernisation, la modernisation voudrait que nos établissements marchands deviennent des établissements sécures pour les commerçants qui y mènent activités, un établissement propre, ludique et aussi les mêmes paramètres, c'est-à-dire de confort, de propreté, d'hygiène, de sécurité pour les usagers qui viennent faire leurs courses dans ces établissements-là. Alors, comme vous le savez, euh, dans l'architecture organisationnelle de l'État, les collectivités locales sont, un, sont des démembrements de l'État. La mission du maire, c'est de mettre en œuvre la politique nationale que définit le président de la République. Aujourd'hui, le maire de Pire, mon frère et ami, M. dans la logique de la gestion administrative, à une politique de modernisation des infrastructures marchandes au sein de la commune de Pire. Alors, maintenant, les critères de choix restreints au niveau de la commune seront définis par notre expertise, notre expérience et l'accompagnement de nos experts en fonction de la définition que fera le maire. Parce que c'est lui qui connaît sa collectivité, c'est lui qui sait de quelle parti on va commencer, par quelle partie. Et aussi, il y a d'autres réalités. Il y a les critères de mobilité, il y a de délocalisation des commerçants, parce que son Excellence nous a enjoint de faire en sorte que notre pays est dans une dynamique de création d'emplois. Aujourd'hui, si nous délocalisons des commerçants et que leur activité cesse, cela serait une perte d'emploi. Donc nous, nous avons pour mission de garantir cette pérennité de ces emplois-là. Donc les constructions ne peuvent pas tirer en longueur. Nous devons respecter les délais de construction exigés par les plans et l'architecture que sera fixée par les techniciens. Donc les délais, le compte à rebours ne pourrait même pas dépasser un jour. C'est ce qui ne nous est pas permis. Donc c'est dans cette dynamique-là que le président de la République nous a mis et maintenant nous ferons Nous ne ferons pas un seul marché à Pire, mais nous ferons tout ce qui est besoin en termes de marché dans la commune de Pure. Non, le coût du projet ne peut pas être fixé parce que c'est des études qui vont définir par rapport aux critères de besoin, par rapport à la demande, au potentiel et au caractère de développement de la commune. jërëjëf alors ñun tey euh, Promogem mooy programme bi nga xam ne son excellence le président Macky Sall moo ko teg. pour gunge collectivité locale yi pour ñu defar euh, marché yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal yëpp euh, comme ni ma koy waxee toujours euh, commune nekkul état wu boppam maire santuñu ko mu ñëw indi ne man nii laay doxalee nii laay doxalee maire dafa war a appliquer politique bi nga xam ne président de la république moom la ñu dénk réew mi li mu teg pour jëmale réew mi kanam loolu la maire yi war a continuer ñoom itam ci seen gox yi. parce que li ñuy wax émergence mooy tey bu ki bu Pire émerger Ngathie Nawde émerger Tivaouane émerger Touba émerger yeneen commune Saint-Louis émerger feneen ak feneen c'est la émergence yooyu bu ñu ko dajalee mooy nekk émergence su Sénégal donc ka ca bopp ba mooy wax ne pour réew mi émerger lii ak lii lañu ñu war a def ñun nag ci wàllu woowu comme que maire yi ñoo yor responsabilité marché yi président dénk leen ko pour que ñu mën a fa jëlee loo xam ne. dañ fay mën a fajalee askan wi yeneen i soxla mu ne Promogem demal nga dooleel ma maire yi ci liggéey boobu nga xam ne sas naa leen ko donc ñun loolu moo ñu indi fii ci Pire donc bu ñu ñëwee fii tey tey signé nañu suñu convention ak maire bi ñu approuvé ko préfet approuvé ko donc léegi ñun dañuy gunge monsieur le maire Ndoye Bane ci lépp li nga xam ne mooy mise en œuvre instruction yooyu nga xam ne président de la république moom la joxe pour maire yi développer seen commune defar seen i marché li ñuy def nag mooy gis nga ñu ngi def tournée dañuy ànd ak moom xool lépp loo xam ne marché la fii ak loo xam ne xëy na futur marché lay doon bu ko defee ñun ñu dem jébbal ko suñuy expert ñu ak maire par rapport ak li mu bëgg parce que maire bi mooy wax lii ak lii moo gën a xam goxam ak yombale bi fi gën a yombee pour déplacer commerçant yi delloo si waat leen critères yëpp dañ koy xool pour xam fan la ñuy tàmbalee ak fan la ñuy eggalee waaye nañ xam ne bés ni tey Promogem dugg si na Pire pour gunge collectivité locale bi maanaam conseil municipal bi à sa le maire pour lépp loo xam ne bërëbu jaayukaay la ñu defar ko ba mu mucc ayib moderniser ko fii ci commune bi waaw donc ñun président de la république yi ñu sant mooy création emploi dafa nekk loo xam da ko soxal ñi nekk ci marché yi loolu mooy seen liggéey président ne ñu bu ngeen demee ci marché na ngeen fexe ba bu ngeen délocaliser commerçant yi seen ak seen liggéey na continuer il faut pas que ngeen délocaliser commerçant yi seen liggéey di yàqu li koy faral di yàq mooy délai construction yi dafay gudd day yàgg te ñun yi ñuy indi délai construction yu gàtt lay doon ba pare dañuy gunge commerçant yi pour seen liggéey gën a ñooyandi bu ko defee délai yi ñu respecté ko bu ko defee nit ñi mën a continuer seen liggéey ñu accompagner leen pour ñu développer ko donc ñun loolu mooy suñu mission donc ñun du ñu dëgmal benn marché incha allah bu ko suñu borom bu suñu borom àndee liggéeyi commerçant yi yàqu wala délai yi tardé. loolu moom incha allah du mission Promogem te am incha allah. merci merci beaucoup. Omar Mbaye porte-parole du maire et de la mairie de Pire président de la commission santé. Voilà, revenez un donc euh, le maire euh, de Pire Mamadou Ndoye Bane et le conseil municipal les populations ont reçu euh, aujourd'hui la visite de Promogem euh, à sa tête euh, la directrice générale madame Ndeye Fatou Diagne. Donc, euh, ça a été une promesse de sa part. Et donc, euh, ce jour euh, a été le jour de réception de cette délégation-là, pour véritablement aller dans le sens d'innover les marchés de Pire. Mmh. Aujourd'hui, c'était la signature d'une convention de partenariat la commune de Pire. Mmh. Voilà, donc, effectivement. À quoi consiste euh, la convention, effectivement, comme vous l'avez dit, a été signée entre le maire et Promogène. Cette convention consiste à rénover rénover et innover euh, les différents sites considérés comme des marchés de pire. Et là où nous sommes, c'est le marché central. Euh, la directrice euh, Ndefato a visité ce marché-là. Et dans le cadre de cette convention, euh, elle va, elle rénover. Donc euh, le projet va rénover systématiquement tous les marchés de pire. Et cette convention prévoit, n'est-ce pas, euh, la construction et l'embellissement de ces marchés-là. Mais il y a également la, le problème de gestion. Oui, absolument. Donc, euh, Promogel va accompagner la commune de Pire dans le cadre de la gestion, en termes de formation d'abord. Et Madame la directrice a bien signifié que ceux qui seront formés seront de la, de la localité de Pire. Donc ce sont les Pirois eux-mêmes qui seront formés et qui vont gérer, n'est-ce pas, avec l'accompagnement de, de, de, de Promogène, euh, les différents marchés. Donc ce marché était, était, un vieux marché créé depuis Absolument. Là où nous sommes, comme je Euh, le marché n'a pas été touché ni rénové, euh, avec maintenant vraiment l'arrivée de Mamoudou Ndoyban à la tête de la commune et l'appui du président de la République. Euh, nous avons bénéficié, n'est-ce pas, euh, du soutien de, de, de, du PUDC, n'est-ce pas, pour véritablement et du pour rénover ce marché central. Je